Euh, Moussa euh, conférence de presse su euh, Yewwi Askan bi barki démb yaa ngi fa woon. non waaw nekkuma fa woon. lu sax yëguma ko. <laughs> kenn yëgalu la ko yëguma ko et puis aussi réunion bi ko préparé. nii man nii Khalifa Sall. donc ci leader yi yow ak Khalifa Sall rek euh, yéen a ko yëgul woon bon ñeneen ni en ma euh, connaissance on les a excusés euh, mm. voilà Habib euh, na l'absence de Aïda Mbodj excusé naturellement l'absence de Ousmane Sonko mais on ne dit rien sur l'absence sur les absences de Moussa et de Khalifa Ababacar Sall. aussi simplement que ça j'étais pas à la réunion bi ko préparé j'étais pas aussi yëgu woon aussi conférence de presse je l'ai su comme tout le monde ci biir. Euh, réseaux sociaux yi d'ailleurs. alors situation boobu nan nga ko jàngatee. je ne sais pas ça m'a bett na ma pourquoi parce que effectivement auparavant j'ai vu qu'on a sorti un communiqué communiqué bi aussi fekk ma fu ñu ko discuter le communiqué qui est sorti fekk ma tam fu ñu ko adopté il y a eu une première fois benn communiqué bu ñu njëkkoon a préparé et quand Khalifa a réagi on a décidé justement de suspendre le communiqué. a réagi, ah, c'est-à-dire Il n'était pas au Sénégal. Il a dit mm que mhm. je ne suis pas d'accord avec communiqué bi ngeen d'accord moi aussi ni ngeen communiqué bi on s'est retrouvé après par la suite benn réunion pure j'ai dit personnellement aux gens qu'en tout cas le fait de sortir ce communiqué de lui rendre service euh, Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi coalition la partie bu nekk aussi am na euh, euh, euh, autonomie ak souveraineté boppam pour jël un certain nombre de décisions ceux qui ont décidé dem ci dialogue bi demuñu ko pour représenter Yewwi Askan Wi dañu fa dem pour seen euh, pour seen bopp et en tous les cas ñun dañoo am ay modalités ak ay façon internes yu ñuy jëlee euh, suñu ay décisions et que donc en réalité il faut aujourd'hui simplement ñu poser le débat de la participation ou non au dialogue c'est au sein de Yewwi Askan Wi et que ñu jël la décision qui est la meilleure pour Yewwi Askan Wi mais aussi pour chacun des candidats yi nga xam ne moom la ñu am biir Yewwi foofu laa gëj a dégg débat bi boobu ba léegi gisaatuma fu ñu ma woowee réunion fekkewaatuma fu ñu ci waxee e je me suis levé un beau jour j'ai vu qu'un communiqué était sorti euh, ñu publier ko en tous les cas même bu fekkante ne communiqué bi génn na communiqué bi sa n'a pas pris une décision ça dit juste ñun demuñu dialogue yónni wuñ fa kenn et si des gens persistent on euh, duñu hésiter à appliquer les dispositions de la charte donc diggante bi amul beneen décision bu fi wàcc si diggante bi donc l' intelligence aurait été que même bu dee da ngay def conférence de presse kii nga appliquer la décision bi nga bi nga annoncé mais même ça amu fi donc aujourd'hui il y avait aucune base légale boo war a tax nga ne diw mi kat du ma ko woo conférence de presse wala du ma ko convoqué à une à une